effectivement comme d'habitude l'Assemblée assemblée générale session budgétaire bi li ci def hmm, présenter déjà euh, rapport au compte rendu assemblée générale de ñuy defoon présenté présenter rapport activité en 2016 présenté aussi hein, le compte les comptes définitifs de 2016 et puis nous euh, ñu tous les projets de budget 2017 euh, alors ci li ni mel est-ce que vous avez ci nga xamante ne mooy am solo nga ko gestion de 2016 waaw gestion 2016 vraiment daf si am nu am solo yu am solo sax yoo xam ne dañu ko si def parce que mm, dañu euh, ni ko olof yi waxee xaw olof nga xaw ma ceinture vraiment dañu def gestion boo xam ne bu concise soo seetloo euh, poste budgétaire yi atteindre euh, comment dire dépense 100

lu mënul nekk rek maanaam fixe bi rek mais dañuy fonctionner par carte di dugal ay carte suñu téléphone yi di woote donc ce qui fait que loolu permettre nañu ren ñu économiser 800000 ci suñu budget téléphone yoo xam ne moom lañu daan def donc am nañu aussi ay surprise parce que am na ay lignes yoo xam ne inscrire nañ ko

utiliser wuloo ko xam nga loo xas ba tëj rek ay ñax dañ fay nekk te lu ne mun na fa ne ay reptil ak ay rampant yëpp mun na te saa yu ba nga xam ne dañ ba génn des ma daal jaaxal nañu lool lool lool suñu amoon autorité ñu si mënoon dimbali utiliser wu parce que 5000 francs yi mu daan fay sax fayatu ko faf ce qui fait que ne ne que même bu bi dafa jaaxle naka lañ mënee fay 5000 francs am na lu si ne te ça date des années 1800 et quelques donc vraiment loolu daal moo ñu mais à part ça a vraiment devenu une réalisation concrète concise def des dépenses yu vraiment aussi euh, les lu dem si personnel bi nga xamante si moom la jëm maanaam responsabilité sociale des entreprises ku war dem retraite fay nañ la ko ñu war a fayal sa IPRES fay nañ la ko ñu war a fayal IPM fay nañ la vraiment masha'Allah, alors chambre de commerce bu xoolee ci wàllu bi mooy béykat yi ak ñi nga xam ne nappkat yi ak yeneen ak yeneen. est-ce mm-hmm. tey noonu gis nañ seen bopp ci liggéey bi ngeen def fii ci chambre bi. bon béykat yi ak euh, sàmm gis nga ne gis nga seen témoignage yi ñuy def. ñom ñoko waxal seen bopp béykat yi euh, appui ñeen di appuyé di len ko di len jappal di len defal ay coopératives vraiment di len jappalé aussi si yenn formation yi pour ñu respecter les normes d'exportation internationale ñu ngi ci sammi mi nga sank li euh, président éleveur yi wax bi ñen leen yóbboo salon de l'agriculture am nañu fa ñaari partenariat yu am solo benn bo xamanteni ni vraiment euh, moy moy sécurité alimentaire u bétail ak benen bi aussi côté santé donc lolu gis nga ne que vraiment am na fa ay gis nañ seen bop dal benn euh, sortie moo fi am mooy euh, ki ñi représenté section pêche nekk Mbour ndax il semble que am na benn usine bu am accident boo xamante nekk nii bi euh, autorité yi demee gis nañ nekk usine boobu agrément am jeex na depuis un an donc li ñu ko wax mooy que ne ñoom élus yi dañoo war a xam ne ne que ñoom 39 lañu ci assemblée bi il y a combien de pêcheurs dans la région de Thiès il y de commerçants ñaata béykat ñaata sàmm moo si nekk ñoom la seeni ay mandats. yebal ñu nekk seeni i ndaw pour ñu toogal leen assemblée pour ñëw di saytu li fi am ak li ñuy am si problème ñu ñëw versé si ko ñun ndax ñu ñu jox say jéego mais loo xamante ni ki ni yow yaa yow la ñu fal pour représenté boobu section loolu am yow si sa gox nga fekkee ko bind da ngay élu bindoo waxoo yëg loolu ah après soo jógee de chambre de commerce doxal si wàllam daanaka yow sa bopp sax nga wax yow yaa doxul sa waar mais léegi yaakaar naa ne message bi jàll na dégg na ko léegi yaakaar naa naan su jógee dina bind ñun aussi wax ñu problème yi fa am ñu mën ko gëstu exemple bi ma mën a joxe mooy euh, même commerçant yi nga xam dañ leen déggal piroon fii marché central poisson bi bu Thiès nii fooy rond point rond point Jaxaaw marché Sam bi ñu leen di déggee fii dañu leen digoon ko ne nekk maire bi daf leen digoon ko ne nekk suñ ko defaraatee ñoom ñoo prioritaire pour jotaat si cantine yooyu bi cantine ñu war koy joxe ñu gis ne que ñu ngi koy jox ñeneen bi ñu ñëwee saisir ñu def nañ si lu ñu mën bind nañu maire bind bind nañu gouverneur bind nañ rappelé nañ ko moom euh, li mu diggee woon lépp loo xam ne daal door nañ ko si def def nañ ko si maire nag àddooguñu mais ñun daal lépp loo xam ne war nañ ko ko si donc parce que ñooñu xam nañ ne que fii mooy seen kër donc loo xam ne yoguñu ko aussi turuñu ko ah moom mu ñu nekk ay devin daal. Hmm. également ci wàllu groupement féminin yi gis nañu chambre de commerce def liggéey bu am solo. ci wàllu encadrement surtout ak le PSE. Hmm. est-ce que mën nga ñëw tuuti ci yenn kuréel yi nga xam ne jot ngeen ko amal fii ak seen i activité est-ce que gis ngeen ni euh, bu ñu leen poussé daañu gën a jëm kanam. waaw ñun nag vraiment chambre de commerce Thiès moom euh, PSE bi ñun dañ see dugg bu baax a baax a baax a baax parce que ne euh, nit ñi hmm, Confucius dafa waxoon. ben ben ben ben kii la dafa waxoon ko ne nekk Confucius ne que euh, soo déggee mun nga fàtte soo gisee mun nga fàttali ko mais soo jëfee rek moom mokkal loolu Confucius moo ko wax donc ñun loolu la ñuy jëf donc li ñuy jëf mooy que ne que PSE mooy plan stratégique de développement du Sénégal horizon 2035 am na amul panel bu bu jàllul amul explication bu jàllul mais da ngay seetlu ne que toujours les opérateur dañuy dañu xam lu si seen lu si seen wàll au niveau de la chambre nous commerce ñu le le Nous dañuy def lu concret nous jëf avons euh, secteur dañuy secteur secteur prioritaire plan émergent le secteur agroalimentaire ce qui fait que nous avons fait dugg identifier produire transformer ni faire un emballage ni ni même ni transporter de bi ñu leen saytoo ñu identifié leen ñoom ñëpp ku si nekk jaay leen ay carte yoo xamante ne ni carte de membre à 1000 francs ñu ñu aussi a adhérer parce que en général on a euh, soo ko ñëkkatee yëpp jox ko fulaal gu mu ko war a jox di ko du ko def te 1000 francs yi aussi ñu ko jaay si ñoom la demande rek parce que te bu ñu leen dencal suñu ay dépenses ñu leen chambre de commerce au contraire lekku si dara mais dañ leen dollil ñun nañu seen caisse 500000 donc nous, euh, bi nous euh, rassemblé ñu def euh, avons diagnostic secteur bi bi ñu secteur bi accès aux intrants de qualité transformation pour respecter les normes am emballage bu qualité bu qualité marketing ak commercialisation donc ak aussi inculquer nit ñi nous consommer local et aussi lancer aussi l'agriculture familiale maanaam lépp lu si biir donc loolu ñu ngi siy dox bu baax a baax a baax ba fu mu nekk nii am nañu benn partenaire sax boo xam ne ni mu ñuy tegal benn unité de transformation màng loolu ñu ko def Pout parce que dañ ne que bëgguñu ville de Thiès lépp lu ñëw rek ñu jël ko. ñu concentré ko fii donc actuellement lu ñëw rek dañ koy comme affaire mango la. te mango bi diggante Pout lañ si saytu ak ñu dem buntu Thiès moo tax usine boobu ñu ngi koy defee Pout des xam naa suñ koy inauguré di ko installé ji dinañ fa ñëw dinañ leen woo ngeen ñëw couvrir ko te loolu fédération moo ko moom léegi dañuy coopérative bi ngeen ñu tegal subooy lépp loo xam ne dañ ko soxla si intrant fa lañ koy jëlee à moindre coût ndax xam ne ko wax coopérative wax subvention lépp loo xamante ni que ni euh, euh, soxla nañ ko si euh, am emballage programme emballage mbooloo mooy doole ñu jël si ko si coopérative bi

fin d'année la ñu defee assemblée générale ñu jox aussi seen i parce que coopérative xam nañ que euh, société privée à but lucratif. Euh, wax euh, budget bi ci xayma ñaata la woon ak fan ngeen ko budget chambre de commerce euh dañu ñëk a compte définitif 2016. en 2016 on a eu 71 millions 665 758 2017 ñu inscrit 78 millions 101 a muy différence euh, pratiquement 6 435 242 yu yok ndax toujours élu ñu ngi naan ñu ngi ñu pour ñu suñu budget ñu dépasser les 100 millions mais aussi bëgguñu inscrit 100 millions pour 100 millions nous avons inscrit que ne lu réaliste réalisable xam ne que lii mun nañ koo am mais pour faire plaisir aussi nous avons réaliser aussi voilà donc euh, pour extraordinaire euh, en 2016 ñu ngi inscrit 15 867 450 nous avons réalisé plus 2017 En 2017, nous avons 16 383 000 donc total global budget bi que que de 2016 87 millions 533 000 mais 2017 actuellement nous avons 94 millions 484 000 donc on a un surplus de 6 millions 950 792 donc nous avons vraiment avancé mais mais mais alors message euh, message may lancé acteurs yi que ñu rapproché au chambre de commerce La chambre de commerce démembrement ministère du commerce la démembrement ministère de l'Agriculture, agriculture la démembrement ministère de l'Énergie, la des mines ministère yo xamante ki des PME démembrement ministère même euh, de de la pêche donc ñuy approché woo xam ne que fii seen kër la secteur informel aussi fi sen cœur la. bu ñuy gis na que bâtiment yi impressionnant na ñu ragal naam sax ñu ngi ñew sax ga am no ouverture mais ñu gëna ñaax rek pour ñu gëna ñew di profité wu si euh, expertise bi nga xam ne moo fi nekk ay xale yoo xam ne coordonné nañu ay programme ak partenaires yi Allemagne Allemagne xam ne ku mu jàngal juróomi at mokkal nga te xale yi fi ne xarañ nañ si italien ku mu jàngal mokkal nga ñun jaar nañu si allemand jaar nañu si italien jaar nañu si canadien fu mu nekk nii suñu xam-xam vraiment màcc na mucc na ayib lool donc te opérateur économique yi moo tax ñu def ko donc bëgg nañu vraiment ñu gën a rapproché wu te soo seetloo ñu ngi leen di gën a jege ñu ngi mbuur ñu ngi euh, am nañu am nañu benn bureau boo xam ne euh, le maire de Mbour abal nañu ko am nañu fa bureau donc vraiment maire du Kayar aussi am nañu fa bureau ñu ngi fexe ba leen di jege si problème contrainte budgétaire moo tax ba bu ñu yegg fu nekk moo tax de plus en plus ak commune maire pour nga suñu dina yegg mais vraiment gi la suñu encore problème ni secteur ngay élu ngay élu chambre de commerce si jox ay yu mu message euh, vraiment au ressortissant de la chambre de commerce de Thiès